aywa Mamadou Fall yéenekaay yi dañu koy euh, tàmbalee ak l'observateur waaw Fatou yéenekaay kon ñu tàmbale ko euh, l'observateur jàpp ni ci xëtam bu njëkk ci wàllu réew mi nga xam moo di élève bu Sénégal di jaari sow kon euh, am yaakaar ci wàllu dundam ndaxte jamono ji kon file wax ju ñu yëkkati kon xel du dal waaye am nañu yaakaar ba noppi ñu ne nañu moytu encore li nga xam def ñu wax ci leneen nga xam te ni moo di tragédie familiale la ñuy wax ñu ne Serigne Abdoul Aziz Sy ñu ne Serigne Moustapha Sy Jamil ñu ne nag doomam bu góor moo ko faat wax na tam ci affaire Iba liberté provisoire boo xam ni may nañ ko Dame Amar Poupette Diadia Tall ak Neex loolee kon ki démb la euh, enquête ci euh, univers bi nga xam te ni dañoo jàpp ni dafa compliqué lool ci yenn ci école yi nga xam te ni euh, nekk nañ fii ci Sénégal waaye wax tamit ci CAF yi nga xam jiite enquête yéen kaayam ñu jàpp ni confession post mortem maanaam ay kàddu yu njëkkati nag gannaaw Fatou Iba Thiam ci procès bi nga xam te ni amal nañ ko démb ca tribunal Dame Amar moom nee na rek bi may génn euh, di dem ci euh, néeg bi dama ko fekk mu faatu euh, ci la panique woo lay la ba noppi ñu daw Dame Pape Diop Bassène Euh, Aya Bakir Jajataal ak ñenn ñi nga xam te ni rek ñoom mm-hmm. euh, ñu tegoon nañ leen loxo mujj nañ leen may li nga xam te moo di euh, bàyyi dëgg niku wéy juru Iba Thiam moom nag la mu laaj rek ci koppar nee na benn milliard la ngir nga xam te moo di ndàmpaay ñu wane Diouf saar di wax ci li nga xam te ni moo di naka la ñuy tëralee lii di stratégie bi nga xam te rek lal nañ ko ngir ñàq sénégalais yi ñëw ci quotidien quotidien ni plan bi nga xamante ni jébbal nañ ko Macky muy Macky am na plan ngir ñàq sénégalais yi ci wàllu Covid bi nee na pàcc bu njëkk bi kon ñu ngi ko jagleel ñi nga xam ni ñoom ñooy cible prioritaire yi ñi am wopp ak ñi nga xam te ne rek dañoo jëm mag ñaareelu pàcc bi nag nee na kon euh, population bi 90 pour cent daañu leen ñàkk fileeg fin mars 2022 wax ci affaire Iba Thiam parquet bi juróom-ñetti weer kon euh, la jël ngir kon daan kii di Dame Amar ak ay ñoñam ñu ne boo moytul ñu nga jëm ca euh, liberté kon li nga xam te ni moo di les échos wax ci procès bi ba tey nee na retour nag sur le crime du lieu maanaam ñu delluwaat fa ndaw si faato wax yi nga xam te ni rek moom moo di ay kàddu yi tribunal ba Dame Amar ak ñi nga xam te ni jàppoon leen may nañ leen liberté provisoire ñu ne yóbbu nañ mbir euh, délibéré nga xam ñaar fan ak juróom-ñaar euh, ci weeru janvier bi ñu dëgmal waaye njabootu Iba Thiam ñoom la ñu sàkku moo di ñu jox leen benn milliard ci koppar euh, saisinu conseil constitutionnel bi nga xam te ni Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yëkkati ngoon Pape Diop ak bokk gis gi ñoom weddi nañu li ñu mel ñu wax ci li nga xam moo di journal record dugg ci biir journaux yi ñoom ñoo daan mujjee Naples nag moom Laurentis na du sax négocier Kalidou Sénégal juróom-ñaar fukk ak ñetti milliards euh, du la ko jëbal le soleil euh, wax ci centre Afrique li nga xam te ni moo di euh, conflit ba fa am nee na Bangui ñu ngi ci biir enfer ñu wax tam li nga xam ni moo di urgence yu Macky Sall yi muy président de la République kon jamono ji moo di fexe ba xeex ak mbas mi libération xamal ni ñu ci wàllu jàppub dorog ca ngapparu mm-hmm. topp nag ci li ma juróom benn téeméer rek juróom-ñaar fukk ak juróomi kilo cocaïne yoo xam te ni mm-hmm. teg nañ ko loxo ñu ne ñaar fukk juróom-ñett ci weeru septembre kon la teg loxo li nga xam moo di boobule dorog waaye sûreté urbaine ak ñoom ñëpp ñu nga ca mbir ma di xool fan la euh, maanaam wane du mu jëkki gëtam ñu wax ci li nga xam te ni moo di source A moom li mu génnee moo di document boo xam te ni lal nañ ko ngir ñax Sénégal yoo xam te ni nañ ko président de la République Abdoulaye Diouf Sarr nag daal na koy jébbal kon njiitu réew mi euh, li nga xam te ni moo di liste boo xam te ni juróomi candidat euh, ci ñi ñuy jëbal vaccin yi ñu ñëw ci laas Diouf Sarr lañ ca wane nee na état bi nag daal dinay door li vaccination yi dana ko door kon euh, balaa njeextalu weeru mars euh, témoin nee na wàllu campagne gerte gi jëwriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi la mu yëkkati woon kon euh, nii ay ton la yu ñu am weddi nañ ko tribune wax ci li nga xam ne moo di euh, dikk mi euh, daal di esclave bu si li nga moo di kon cabinet bu Sidiki Kaba ab boo xam te ne daal nee nañu affaire u nitu kaw la piage kon yi xam te ne amal nañ ko ci crédit mutuel bu Sénégal ñu ne daal crédit mutuel Sénégal jamono ji nekk na zone non crédit populaire njabootu Iba Thiam la wax ci li nga xam te ne laaj nañ 1 milliard ci li nga xam te ne moo di kon démb seen procès bi dégagaat ñu ne xeex jëm ci Covid 19 guerre des vaccins maanaam ban ñax la ñuy ni Sénégal journaux sportifs yi stade wane ni daal daan na Marseille démb mu nekk nag euh, juróom-ñetteel bi nga xam te euh, mu teglee daan ko xëy na euh, Pape Abdou Fall wax ci sunu làmb ne ñun daal ñu ngi toog di xaar décision bi état di jël ci wàllu làmb ji moo xam huis clos wala ñu ngi toog loolu daal muy ay ragal yu mu am ci saison wu ren bi ñu jeexalee ci li nga xam te di jour bi niñ ko tàmmee ci wolof <laughs> ah, bëgg ki la bëgg ki la bañ lu mu lay wàññi. ñu mu lay wàññi merci beaucoup Mourou euh, yi euh, ak itam euh, pensée africaine du jour bi nga xam ne temps yi da nga ko fukkati ci Mortala ah. mm-hmm. bëgg nangu bës bi le grand reviewer. bëgg nangu bës bi <laughs> moom ñu koy dégg ci nasaraan foog dama leen di ruubee Mourou Fall suñu xam nga Mor moo fi amoon temps yi bi mu demee sax ñu doon assuré intérim bi ñoom Chérif dañu doon def rek. Mm-hmm. revue des titres noonu bàyyi mm-hmm. mais man xam tax ma fan la. da ñëw dóoral ñu ko olof bi moo tax may la yaa nangu bës bi kenn du yow Fall daanaan àndu <laughs> jingo aca kaay toog fii Mamadou Fall la woon ñu àndoon ak moom ci li ci yéene kaay yi 7h39 daanaka jot na euh, Babacar Fall tey nag euh, moom euh, ganam Ibrahima Ndaw lay wuyoo ñun professeur Magaye Kassé la ñuy dalal ci ñaareelu pàcc bi rendez-vous à 8h merci de nous rester fidèles bu leen fàttee bala ngeen di génn ngeen couvrir bu baax ndax sedd bi ci biti tar na torop merci